Salam ñu ngi leen di di leen ziar di je vous retrouve encore une fois sur votre chaîne A2S Pro continuez à vous abonné ngeen la cloche de notification que su ko fait pour vidéo de Google, vous ngeen mën ko à temps réel Je remercie tous les sénégalais qui euh, ont de casserole bi nga casserole, la deuxième édition initiée par la coalition Yewwi Askan Wi le président Ousmane Sonko qui nga annoncé à chaque fois ñu gis ne sénégalais yépp génn nañ comme ni ñu génnee woon euh, mercredi bi nga xam ne moo nekkoon la première édition vraiment tëgg nañ bool yi wane nañ ne ils en ont marre ci Macky Sall donc euh, loolu dafa nekk loo xamante ni lu am solo la parce que nit su fekkee ne euh, ñi la fal dem nañ ba bëggatuñ la suñu bëggee marche nga tere leen marche bi donc dafa normal nga ut yeneen pexe yoo xamante ni tey ci nga mën a wane sa mécontentement ak sa ràllu bool kon ñu ngi remercier ñëpp di leen wax ne nañ ko jàppee nii rek fas yéene xeex ak Macky Sall sur tous les plans pour mu man ñoo abal suñu réew mi parce que yàq na réew mi delloo na réew mi ginnaaw delloo na démocratie bi ginnaaw delloo na justice bi gannaaw impunité mu ngi gën a yokk népotisme mu ngi gën a yokk corruption mu ngi gën a yokk ku ànd ak moom lu la neex nga def ku àndut ak moom mu rëbb la boole la ak justice bi ñu japp lu tëj la ci kaso bi illégalement duñ ci am benn vergogne duñu am dara lu ñuy xol duñu xol droit duñu xol loi dañuy def lu leen neex te loolu dafa wara jeex ci Sénégal gis nga nak ñi nga xamanteni ñom lay dundal moy euh, les journalistes alimentaires wala la presse alimentaire du ñep nak je vais pas mettre tout le monde dans le même sac gis nga tay lu ñu xey seen à la une xëy nañ di saboté naan waaw dafa am fiasco ci concert de casserole bi les sénégalais tournent le dos au président Ousmane Sonko lu nekk wax nañ ko seen presse en ligne bi tamit même chose léegi Sénégal ñëpp comprendre nañ nu mu demee Macky Sall xeexam dafa salte moom bi mu bi mu falo ba léegi dafa dem recruter ay journalistes yoo xamante ni euh, voilà c'est des journalistes alimentaires nekk def leen ay mercenaires de la plume xam nga créer ay journaux yu bëree bëri gaayam yi dañoo créer ay journaux yu bëri ñu koy jàppale xam nga pour di yàq deru Ousmane Sonko ñoom opposition bi du seen problème ñoom benn opposant lañu am mooy son Sonko ñoom xam nañ ne ñeneen opposant yi ñooñu mënuñ leen a yëngal ñoom kenn rek mooy seen problème moo leen të mooy le président Ousmane Sonko def nañ lu nekk pour yàq deram def nañ lu nekk pour jéem ko jàpp tëj ko si kaso bi mënaluñ ko dara léegi nag campagne de diabolisation lañ jógtee mooy seen association de malfaiteurs bobu nga xam ne ñi ko composé bari nañ les gens du système mooy ñu nekkoon ci Abdou Diouf nekkoon ci Abdoulaye Wade ñëwaat ci mom xam nga ñoo ñëw tay def sen ben coalition and xeex Ousmane Sonko and yàq der Ousmane Sonko boole ci sen ay journalistes entité yi nak fo dem rek di nga leen fa fekk tay ji bo démé ci société civile bi di nga fa fekk ño xam dañ leen recruter ñi wone na ñoom ci société civile bi lañ bokk te bokkuñ ci di dal ci kaw Ousmane Sonko. boo demee tey ci presse bi loolu moom dafa fës kenn waxaalewu ko voilà da ngay gis ay journalistes yoo xam ne ñoom nëbbuñ sax ne Macky Sall la ñuy jàppale lañuy toog sax chaque lundi ku ci mel ni ma Madiambal Diagne nga xam ne dafa alaku xam nga am na nit ñoo xamante ni yàlla daf leen di lakk fii nii ci ci ci biir àdduna te demaguñu àllaaxira bu ñu demee àllaaxira nag si la leen di soog a lakkaat mais yàlla léppam ay misaal la maanaam yàlla dafa daf ñuy misaalal lu ne imaginel waajooj boo ko gisee tey amul benn leer dafa lëndëm ñuul kuk kuk kooku da lay wóor ne kon ku yàlla alag la koo xam ne yàlla mu ngi koy mbugal te deewagul bu deewee mu soog ko doggalee xam nga muy jàmbal Diagne mu ngi yore journal journalam di Le Quotidien chaque lundi mu génn saaga Ousmane Sonko ba ak yeneen journaliste maa ngi gis tamit ki nga xam ne moom mooy Soro Diop man xaw ma woon sax na ci affaire yi la bokk <laughs> démb dégg naa ko mu def benn article <laughs> di saaga Ousmane Sonko quoi ak ñeneen ak ñeneen fu mu nekk nii daal fu mu nekk nii daal journaux yi nga xamante ni daal ñoom. Euh, ñooy def seen liggéey correctement féete ak peuple bi dañ leen di compter voilà entre temps créé nañ fi ay journaux yu bari comme les Échos nga xam ne Samuel Sarr moom moo ko créé te Ousmane Sonko ñi ko contre ñëpp mooy ñu gën a dëng Sénégal ñi nga xamante ni tey Ousmane Sonko bu falu woon xam nañ ne seen dossier dañ koy lijjanti ñu dem ci kaso ba du Ousmane Sonko mooy ñëw sax di def ay vengeance wala di instrumentaliser la justice comme ni ko Macky Sall di defee mais su ñëwee dafay mettre en place. justice bo xamante ni ñu day indépendante mom bopam te su boba juge yi fa nek tay wa dinañ dem lijeenti ji xaalisu sénégalais yi ay ñom Samuel sar dañu sàcc ci xaalisu sénégalais yi Samuel sar lu mu def ci ay malversation ken xamul nu mu toll moo tax bëgg Ousmane Sonko Macky Sall tejon nako fi ci offense au chef de l'État Omar sar Macky Sall tejon nako fi ci offense au chef de l'État te def def na ministre tay maître Amadou Sall Euh, Macky Sall tëjoon na ko ci offense au chef de l'État lolou petit ci début Macky Sall la quoi mais nan lañ muju def dañu dem jébbalu ji ci Macky Sall su dee ay Amadou Sall maître Amadou Sall amul ben poste mok ñom Farbo Senghor ak ñom Serigne Mbacké Ndiaye ñom joxu leen poste quoi mais dañuy dem ci plateau yi diko de défendre di dal ci kaw Ousmane Sonko su ko défé bu wérdé mu mosal len dara pour ñu mëna am dara ba paré nak dafa yor sen ay dossier timide voilà suñ continuer won diko ko contre rek. day suli dossier bi xam nga Macky moom saay-saay la bandi la moom noonu la leen di chantage moo tax gars yi amuñ pexe ñoom Samuel Sarr tamit amuñ pexe il faut ñu ànd ak Macky Sall parce que kooku lu mu def ci ay scandale kooku tey bu ñu ko càmbaroon laa la wax ci yóbbu ko justice day tëdd prison à vie Samuel Sarr bandi la wéyu la xam nga euh, yéen a ngi fàttaliku bateau boobu noonu bateau fiol boobu noonu ñu indi woon si temps yi Ablaye Wade nga xam dañoo dem indi fiol bu bon dugal ko ci machine u euh, centrale quoi cap de biche ben, xam nga ak affaire bi panne des coupures intempestives coupures donne un temps à Ça Samuel Sarr Le te dossier bob non vous n'êtes dans un état de droit dëgg dëgg dëgg justice condamné ko ko ci Sénégalais ak ñeneen ak ñeneen bari nañ ay ñoom commissaire Kayte boo gisee ñuy dem ci télé yeeg presse en ligne bi di saaga Ousmane sokko di ko sosal Macky dafa yor seen dossier ñoom parce que bu leen fàtt ne moom moo jiite woon ak Cortis dañ doon wax ne dañ doon jël drogue di ko incinérer te farine lañ daan jël di ko incinérer di nax sénégalais su ko defee ñu jël drogue bi dugalaat ko ci marché bi di ci liggéey ak ay ñag lu tax Macky Sall bi mu ñëwee bees rek dàq ko <laughs> loo gis dafa am lu ko waral Macky moom la njëkk a dàq 2012 Macky dafa toog. avril deful sax deux mois ñu dàq commissaire Keita moom lañ njëkk a dàq te mënoon nañ ko tëj ci kaso bi ak ñeneen ak ñeneen bëri nañ quoi képp koo gis tey mu contre Ousmane Sonko rek nekkul ku jub mais ñi nga xamante ni dañoo ànd ak Ousmane Sonko mooy ñi gën a jub Sénégal mooy ñi gën a baax senegal tey su ngeen gisee ay Amadou Tidiane wan tey mën a ànd ak Ousmane Sonko tey xam nga ay laasi laasana gàññi saaxo nga xam ne à chaque fois day def ay tweet di di di di di kontaan ci Ousmane Sonko diko ko à chaque fois parce que ñooñu en réalité dañu nek ay nit ñoo xamanteni ay nit ñu set lañ ay nit ñu sel lañ motax dañu dem ba mëna tuñu and ak Macky Sall tay xoolal Amadou Tidiane Wane jaar na ci nguur mais nekkul ku tilim nekkul ku salté amul ci benn scandale buñ ko mëna tuddu tudd ñooñu tey ñoom ñooy nit ñu bax ñi nga xamanteni tay ñom ñoy and ak Ousmane Sonko ak sénégalais lambda yi nga xamanteni ni dañoo sonn bëgg changement ak ñun ñi nga xam ay nitu dëgg lañ dëgg moñu gënal fofu ay fen xaalisu sénégalais yi ñun intéressé wuñu ñun di topp ay ministre rek ay directeurs généraux yi wala di ànd ak Macky sàll pour di mos dara ci xaalisu sénégalais yi ñun loolu wu ñu loolu riba la ñun soxla wu wuñu riba <laughs> ñun dañoo bëgg di ñàq di liggéey bu néewee nga xamante ni dañ koy mën a lekk ak fierté ko xam nga xam ne xaalis bi ñun ñoo ko ñàq liggéey ko di si dundal suñu njaboot nga xam ne suñu njaboot bu ñu lekk bu ñu lekk safara parce que xaalis bu bon boo koy lekk fii bu tuunihim naaran léegi nag Macky Sall xaalis la jël mooy huit milliards euh, caisse noire bi nga xam ne sénégal yi ñoo ko moom l' argent du contribuable moom la dem dugg ci euh, secteur yi nekk Sénégal yëpp maa ngi leen ko doon wax ku nekk mu lay dundal mu lay dundal pour lu mu def nga cautionné ko fépp nag fat mënuma fee nekk di tudd tuddoon naa fi société civile tudd fi journaliste yi xam nga boo demee ci mbër yi da leen fa fekk dem ci footballeur yi boo demee ci këru diine yi foo dem Macky am na ay pion ci imam yeeg imaam yi sax ñoom nëbbatuñu am na imaam yoo xam dañuy génn sax ñoom naan Macky Sall lañ àndal ñun ñooy imaam Macky Sall am na imaam yi fi génnoon naan dañuy soos soosaat am na ay imaam yi fi génnoon naan dañuy soutenir Diop euh, kii nii Diouf Sarr ci élection locale yi terewul ñu duma ko duma yi métt am na ay imaam yu Macky Sall recevoir oon palais di leen dagan na góor jigéen ñun <laughs> ñoom ñu taxaw di wax Macky Sall ne waaw li nga wax dëgg la te Macky Sall dañ ko wax na ko criminaliser góor jigéen mu bañ au lieu que imaam yooyu dem wax ko dëgg ne ko diine lislaam lii la ci wax alxuraan lii la ci wax yonent bi lii la ci wax waxuñ ko ñu ne ko yow Macky Sall yaa nekk ci dëgg li nga wax dëgg la parce que xaalis lañ gëm moo tax ma ne leen Sénégal affaire bi du ci ay mbaxana yu ngand ak ay sol ay daraayeeg ay taxaw ci min bar bi waxuma nag ñëpp la man du ma jël ñëpp mettre leen dans dans le même sac mais gis nga ragal yàlla ajuwul ci bokk ci benn këru diine ajuwul ci bokk ci benn famille religieuse boo xam ne ay sant la wala ñu ne yow da ngaa jàng alxuraan wala ñu ne yaay yore daara jële wala ñu ne yow yaay imaam du ci dara mën ngaa gis koo xamante ni tey benn xale bu góor la di sol ay kilotam sol ay t nekk ci mbedd mi di fubal fekk moo leen gën a ragal yàlla gën leen a jóg affaire bi du ci loolu ñun suñ quatre-vingt-quinze pour cent musulmans yi ñuy bàkkoo ñu ci ëpp si des faux musulmans dëgg neexul nañu waxante dëgg parce que li depok dina ji duñ ko duñ ko def deug la bo xamne ne lañ gëm aduna rek khalis khalis rek bo yoré khalis yow yow mom tu es sans faute gis nga tay Macky Sall tay bu waccion suba suba suba suba nekkatul président ñi and ak mom ñep dañ koy jàmp <laughs> mais gis nañ ko def nañ ko Abdou Diouf def ko Ablaye Wad Macky Sall tay ñi ko wër moy ñi nga xamne ñom ño doon ñoo doon xex Ablaye Wad ba Ablaye Wad dàq ko ñoo ñewat ñi tay di tarbi wat ba pare di tag té te ñoom ñoo doon taxaw ci digënté premier tour ak deuxième tour di saga nan naan Macky Sall bu leen ko fal baaxul ci réew mi Farba sangor sax and mësna jël ben cameraman and ak mom ba aéroport di wane ay terrain fofu non ci aéroport Léopold Sédar Senghor amna ay terrain yu ko woron nan gis ngeen Macky Sall bi nekké premier ministre ci le profito sacc terrain yi yépp mok Marème Faye ak njabotam bu len ko votelee souf Sénégal bi dina ko jël jaay ko Farba sangor moko waxon lolou loolu ko ci diggante premier tour ak deuxième tour tay nak Farba sangor bobu bokku na ci avocat Macky Sall yi mok Serigne Mbacké Ndiaye Serigne Mbacké Ndiaye mo fi waxone bu ngeen falee Macky Sall ñun ñëpp ci kasso bi lañ jëm Macky Sall ñëw say say la ñëw santage leen ne leen xolo ñëw leen and ak man wala kasso parce que ñom ñëp am nañ xaaliss dañu sacc xaaliss xaalis Macky dafa say say mom ay jugeam la amé voilà c'est lui qui préside le conseil supérieur de la magistrature moom mooy nommé juge yëpp moo ministre de de de de la justice di nommé ay procureur am ku mu bëgg a jàpp da xam nga Macky il ne respecte pas les sénégalais Macky faalewut sax ne euh, am na dëkk bu am seen maanaam Macky faalewut sax sénégalais quoi yëgul sax ne am na dëkk bu tudd Sénégal moom dafa nekk président nii rek di jiite benn dëkk bu tudd Sénégal mais xamul sax lan mooy lan mooy état xamul lan mooy nguur gis nga Macky boo sàccee mille milliards au Sénégal yow hmm? te ñëw ànd ak moom moom du la wax dara moom ñëwal ànd ak moom rek moom problème mu ko ànd ak moom la am moom dafa bëgg ñëpp ànd ak moom yow boo tekkiwul dara sax sàcc mille milliards Sénégal nga xam ne mënoo ko apporter dara ñëwal rek ne ko maag ci rangé wu naa sa ginnaaw yow laay jàppale. ceex na du la def dara léegi kon kooku est-ce que faale na Sénégalais est-ce que. Euh, respecté na Sénégalais yi est-ce que intérêt Sénégalais yi kooku loolu intéressé na ko te Sénégalais yi ñu ngi am problème feebar faju am problème ay écoles yu baax am problème eau potable suñu doom yaa ngi dugg ci gaal yi di dee Maroc ngi nii ñu ngi fa téye suñu doom di leen toroxal def leen comme ay esclave di dóor di rey hmm? loolu lu ko waral pauvreté moo ko waral nit ku dem bay jël gaal di ci dugg pour dem Europe te xamoo lan ngay fekk ci foofu mais wax deug yàlla amul ben espoir fam deuk fam deuk bu fa amone espoir am ci lum jàpp pour meuna dimbale bopam dimbale ay wajuram te ko ci wax def naa la sama yaay lay dimbale wala sama pap su amone lol deukam lan mo gëna neex tok sa biir deuk tekké fa difa liggé mais lol dafa neex ba bëgg dé mais amuñu ben choix mais faale wu len respecté wu len lijeent sax du len ko def mom dal gouvernance am bi mom la famem ak ay xaritam ñu nango ànd ak mom te ñiy ànd ak moom kenn gëmu ko ci jàmm rek lañ bëgg parce que xam nañ ne suñu àndat ak moom duñu am jàmm xam nga Ousmane Sonko mii ku ko ci yab <laughs> boo wéetee xam nga ne du sa morom ku ko ci yab ci journaux yi ngay nekk ci presse en ligne beeg ci télé yeeg rajo yi rek waaye ku wét di nga xam ne Ousmane Ousmane Sonko du sa morom parce que Ousmane Sonko nu muy gérer xeex bi kay Macky Sall di xeex ak Macky Sall arsenal bi mu utiliser contre Ousmane Sonko kum ko mas a teg daaneel na la te xoolal bi mu commencé songoog Ousmane Sonko ba léegi

Vu yum len leen non noonu ne vues la du Facebook amna fo foo xam ne fa duggee da ngay jënd ay vues fa jënd ay vues parce que manul am soixante 000 euh, personnes yu koy sétane voilà parce que il devient impopulaire. légui bu mu koy def xawma nak nag dañoo planifier seen affaire duggal ben question ay affaire ay viol xawma lan hein mu wax ay waxam après gaay yi xam nga déjà loolu yëfu ñak jom la mom weer bopam sax mom complot biñ ko doon jiiñ mooy ñu lay jiiñ dëmm ngay soccoo yeelu xale moom complot bu ñu ko doon jiiñ dëgg la kon parce que moom <laughs> dafa dafa wax ne am na ay ñoo xam ne violé nañ ñu ngi prison xam nga am ñoo xam ne seen dossier mu ngi instruction dinañ dem procès rek gars yi mi commencé di ree di tàcc quoi xam nga ñàkk fayda ak bassesse bi nekk ci Macky Sall man mësumaa gis lii man ci sa suñ sama àdduna maanaam ñun Sénégal est-ce que nous méritons ce président là bu ñàkk fayda ñàkk fulla alak parce que alak la lay da ngay dem da def yo xamanteni yow daf lay ridiculiser dila xorom nit ñi dila gëna xép nit ñi manquer de respect kenn dula naw té loolu woné ci Sall gars mu mu non voilà li ngeen wax nga ba lan lañ yow wax nga sa wax ne amna ño ñoo dinañ dem procès te dossier bobu xamnañ ne complot la yeen yene ko teug te buñ len ko jigné da ngeen wax ne du deug yow kañ avoué nga fu nek ni nii aveu loolu aveu la kon wane nga ne yow ya nek ci gannaaw complot bi di jema a Ousmane Sonko viol mais Ousmane Sonko mom mano ci mom dara da ngay noppul parce que le peuple sénégalais plus particulièrement la jeunesse est derrière Ousmane Sonko fu may jeexalee rek mooy dafa am euh, ay nit ñoo xamante ni tey ñu ngi commencé di wax naan Ousmane Sonko ak waa Yewwi Askan Wi dañoo dellu ginnaaw ci seen euh, euh, manifestation bu ñu waroon def mais manifestation boobu moom contexte bi moo tax mënuñ ko def te affaire bi piège daf cee amoon parce que Ousmane Sonko ñu ànd ak moom ñëpp mooy les sénégalais lambda waxoon naa leen ko. xam nga moy citoyen yi nga xamanteni seen loxo jotul seen ginnaw ñoo ñoo nekk ci mbedd mi di jaay xar ñoo ñoo nekk ci atelier tailleur yi ñoo yore ay boutique yore ay mercerie di jaay té ci période bi événement tabaski la té xam nañ événement tabaski bu jipsé événement lay nekk Sénégal dañuy fanan ak yépp légui tay état bi su waxé né kenn du fi marche gaay yi forcé marche comme li amone le 17 amat am ay nit ñu ci dé su boba Ousmane Sonko lañ koy sëppi té man nako yakal lu bari ci carrière politique ñi avons ak moom ñu yàqal leen tey ñooñu mën nañ ko sax tourner le dos ne Ousmane Sonko daf ñu yàqal na la manifestation bi te wax sax duñu wax Ousmane opposition bi Khalifa Sall ak ñoom Malick ak ñeneen ci bokk ay Ousmane Sonko rek la wax. ñoom buñ génnee di saaga sax seen saagakat yi ku ci mel Lat Diop nga xam ne dafa bëgg a <laughs> dem fay ay journaux di organiser conférence de presse di Ousmane Sonko pour juste mën a siiw quoi Ousmane Sonko du ko mas a tontu ci àdduna parce que moom tekkiwul dara ku mante gagné commune d' arrondissement bu golf golf sud nga xam ne benn liet naan bu bu bu kii nii bu euh, bu Ousmane Sonko ñu koy wax euh, Khadija Mahécor moo ko fa duma duma yu métti humilier ko léegi nag loolu moo tax mu jàpp ne pour euh, conserver postam ba Lonase nekk directeur Lonase il faut que muy saaga Ousmane Sonko pour Macky Sall gën a kontaan ci moom c'est vrai que Macky dina kontaan ci moom parce que Macky loolu la bëgg Macky moom moom boo ko doon saaga ndey sax dem ba mu yàgg nga ne ko Macky saagaatuma la léegi Ousmane Sonko laay saaga sax mu recevoir la comme bi mu recevoir saagakat boobu nekk koy fàttaliku kooku saaga na ko fa ay ndey yoo xamante ni mu ngi ci YouTube bi te loolu du a effacé wu mu ko bàyyee saaga ëlbatiku ne ko léegi Ousmane Sonko laay saaga daf ne moom bëgg na recevoir ko defal ko loo xam du ko defal sax presse nationale bi moy accordé ko interview xamut sax nan lañuy poser question xamul xamul dara ci limuy def xam nga donc kon euh, manifestation bi lutax tax volte-face am ci delu ginnaaw bi contexte bi moko ko laaj te nit timit da nga wara respecter ñi nga xamante ni ñoom sa population parce que Sénégal dëkk la boo xam ne ñi gën a sonn tey ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko comme ni ma ko waxee kon Ousmane Sonko du def dara moog waa Yewwi Askan Wi loo xam ne dafay euh, porter préjudice wala muy yàqal ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak moom kon daal bu leen déglu kenn koo xam ne yàqkatu der la ñoom ay borom gémmiñ yu nàcc lañ duñ wax duñ wax jàmm quoi Ousmane sonk daf leen a sonal Ousmane Sonko la Sénégalais yi bëgg Ousmane Sonko la Sénégalais yi wóolu ñoom fu mu nekk nii état rek lañ amee dañ see bëgg a jafandu utiliser doole état pour di xañ nit ñi seen àq ak seen yelleef gis nga ñoo yore police yore gendarmerie te gis nga bopp police ak. bopp gendarmerie gis nga ñu ngi fa teg police mu ngi fa teg Bokar Yaad yàgg euh, gendarmerie mu teg fa Moussa Fall du moom li mu bëgg sale bulo bi mu bëgg ñooñ ji ko ko defal mais du ñëpp ñu nekk euh, police ñoom ñoo koy accepté am na ñoo xam ne am na lu ñuy jomb am na lu ñuy bañ mais ñi nga xam ne ñoo gën a salté gën a tilim ci justice bi ak ci police bi ak ci gendarmerie bi ñoom ñooy nangu nag offre boobu noonu da di wax na leen lii laa bëgg defal leen ma ko ma jëndal leen matériel de répression ngeen dal ci kaw nit ñi léegi su ko defee policiers yu simple yi ñoom dañ leen di jox ordre ñuy exécuter ñooñ jotewuñoo ak ñoom dara parce que lu ñu seen salaire baaxul ñooy taxaw ci naaj bi ah ñooy xeex ak xale yi mais seen chef yi ñoom ñoom la ñuy jëndal ay kër yu rafet jox leen ay suuf jox leen alal ju bëri jox leen ay privilege yu bëri ay avantage léegi su ko defee ñu leen di utiliser ñooñu defuñ dara ñun jotewuñoo ak ñoom dara xam nga léegi nag police boobu ak gendarmerie boobu lay jël ay nitam teg fa ut justice bi tan ñu gëna yees ñu gëna salté la pourriture de la justice ay nit ñoo xam ne wuñ dara tek leen fa ñu koy defal sal boulot ñu melni wa conseil constitutionnel ak ñeneen ñu nekk ci yenn cours de tribunaux yeeg yoy noon xam nga su ko defee ñu téye appareil d'état bi di ko xeexee loolu rek moo ko fi dese bu waree organiser élection du ko organiser à temps su waree éliminer ay candidats ci justice bi la koy jaarale mooy ñooñu nga xam ne moom moo leen nommé xam nga. ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni moom lay dooley état la moom lay jël di ko utiliser di ci xeex ak nit ñi mais bés bu peuple bi jógee pour bëgg a jël nangu li nga xam ne moom moo ko moom su boobaa du ci mën dara parce que gis nañ fi Ben Ali gis nañ fi Moubarak gis nañ fi ñoo xam ne ñoo ko ëppoon doole fuuf te bi seen peuple jógee dañ leen a dàqee ñu daw génn dëkk ba gis nañ fi Blaise Compaoré nekkoon na fi dictateur bu soxor voilà

di jaay nit ñi doole di éliminer ay nit ku bëgg a votel nit ñu ne doo ko fi votelee éliminer sa candidat yow sax des fois nga bëgg a votel nit ñu xam ne yow kii ngay voter ñu xañ la sa carte d'identité ne la euh, doo fi voter donc Macky Sall daal moom ñu mu àndal amuñ jom amuñ benn vergogne amuñ dara lu ñuy jom waaye daal sénégalais yi nañu préparer élection législative rek ñi nga xam ne jot nañoo jot seen carte ñu voter massivement contre Macky Sall pour jëlee Kofi. parce que comme ni ko président Ousmane Sonko waxee eh, buñ ko eh, xañee majorité de assemblée nationale c'est mooy tax du am doole bi nga xam ne lay forcer pour jéem présenter pour une troisième fois parce que xam savez, le conseil constitutionnel am bi nga xamante ni ñoom ñoo ko defal tey lu masta am ci histoire eh, élection au Sénégal ak liste le code électoral il dafa wax ne liste li koy composé mooy ay titulaire ak ay suppléant kon titulaire mënul dem bàyyi suppléant suppléant mënul dem bàyyi titulaire léegi nag jalgati nañ code électoral bi jalgati constitution bi def lu leen neex ñooñu tey ñu mën a def loolu xam nga ne Macky Sall bu ne day nekk candidat 2024 dañ koy dañ koy dañ koy valider loolu jarut sax ngeen koy xalaat Sénégal bi mu nekkee Sénégal ba léegi conseil constitutionnel bu mës a am conseil constitutionnel u président bi lay nekk te ñun li ñuy xeex mooy loolu jeex fi takk takk takk gis nga tey ñiy jàngale droit dañoo sax ruus ku ci mel ni professeur Ngouda Mboup foo ko fekk daf naan moom day am kersa buy jàngal ay étudiants yi parce que seen ay doyen yi nekk conseil constitutionnel <laughs> ñoo waroon joxe le bon exemple mais seen yoon nekkul ci ndax teraanga ju leen Macky Sall di jox moo leen intéressé xam nga tey bu ñu demee ba ay Aminata Tall ay Mankeur Ndiaye di génn nga xam ne ñoo ak Macky Sall sax ñoom ñoo ànd di kaas ñu leen di menacer parce que dañoo dem ba dañoo ruus. maanaam dafa am ñoo xam ne dañoo nekk gor même bu ñu àndeek yow booy def yenn yi sax dañuy am sa quoi ba bu ñuy wax sax duñ ko tey parce que gis nga dëkk am na foo xam ne bu fa tollee maanaam ku waxul rek yow complice nga quoi wala ku waxul sax doo gor quoi pour man xam nga léegi tey ñoom bëgguñ bëgguñ ku leen wax dëgg parce que lu ñuy def ay tappale la léegi dañuy bëgg ku leen di jàppale ci seen tappale yooyu moo tax tey Mankeur Ndiaye ak Aminata Tall ñu leen di effectivement nous wax nañ dëgg tey lu masul am Sénégal la conseil constitutionnel def Antoine Diom moo commencé Antoine Diom <laughs> bu de une décision wala mu arrêté mais conseil constitutionnel war nañ bu a kawe bu xasee ba wax ba pare jeex na sax décision wu Antoine Mais bi mais réunion bu la couper la poire en deux. su ko defee ñu def ko occasion éliminer waale ñoom Ousmane Sonko parce que ñoom ñooy potentiel adversaire bu Macky Sall ñoom ñoo mën a sonal Ousmane Macky Sall ba pare même bu loolu sax Macky mooy def benn genre vengeance moo ko Antoine Diome ci Ousmane Sonko wan ko ne ko ñun danañ def ay pexe sax yow ba doo nekk candidat <laughs> voilà xam nga ja si jaay doole bu métti lañ nekk tey jii titulaire yi euh, yi nga xam ne ñoom ñooy benn bokk yaakaar yi ñu wax ne ñoom ñooy dem <laughs> tax Nous devons defal leen ay si quelqu'un bu ci kenn démissionné inapte dem ba la député assemblée mais il faut kenn remplace ko loolu nous titulaire def suppléants comme équipe nationale rek dañuy ay joueurs Nous nekk titulaire yi partant Sadio Mané être wala Idrissa devons être Koulibaly Nous mais ñu nekk ci banc bi ñoom ñoo dañ ciy jël kenn koo xam ne moo kooku ñoo bokk poste kooku remplacer ko léegi liste nan lay amee te du am euh, suppléant nan lay ay suppléant tamit di demee ñi nga xam ne ñoom ñoo war a remplacer ñooñu ñu jiital leen na ñoom ñooy dem titulaire yi toog <laughs> mais loolu c'est incohérent xam nga Sénégal daal mu ngi nii Macky Sall yàq na ko mu ngi def lu ko neex ay kilifa di ko jàppale ay ponkal ñu gën a nekk ay ponkal ci Sénégal ah ñoo koy jàppale ah xam nga su defee ay njombeem def lu ko neex jalgati constitution jalgati droit ñoom ñu xam ko bu opposition bi génnee di manifester ñu ne leen noo toog leen réew mi jàmm lañ fi bëgg naan xale yi bu leen génn ku fi génn da ngay dee cest à xam nga mu nekk loo xam ne lu métti ci xol la lu méttee méttee te am na ñuy wax ne ñoom ay nitu diine lañ xam yàlla wax xam lu yonent bi wax yonent bi neena man raa minkum munkaran fal yu bi yadi fa in lam tastati fa bi lisan fa in lam tastati fa bi qalbihi zalika adfaul iman ñoo la ko gëna xam xam lu muy tekki mais seen yoon nekk ci seen yoon nekk ci waxuma nag ñëpp la de benn benn yi rek ñoom daal Macky mooy président moom lañ àndal on s'en fout de l'opposition tey bu Macky euh, waccion ni Ousmane Sonko yëg Yalla nako Yalla def day melni du ñom ñëwaat wat. ay soi-disant grand serigne de Dakar xom nga xam ben titre le bu tekkiwul dara ben poste bo ay poste tapalé serigne bo yow mëno wax ay alcorane kok nuñ lay grand serigne mëno wax ay alcorane mëno wax hadith ñu yow grand serigne de Dakar affaire mbokk lebu lañ nak mais yoy taxawul ñu ay imposteur lañ yoo xam dañuy ñëw toog rek voilà yore benn poste lëkkaloog état ñu leen jox ay avantage ak ay privilèges ñu génn di faral état ak lu état manti def ñu faral la dal ci kaw opposition bi néewal leen doole ay jaraaf ay nangam yëfu caaxaan la yëfu caaxaan la gis nga diine du ay fo sëriñ du ay fo xayrukum man taallama alquran wa allamahu loolu yonent bi wax ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran di ko jàngale Baye Niass nee na al ilmu huwal imaam xam-xam mooy njiit mënoo wax ne sëriñ nga ba pare te jàngoo amoo xam-xam mel ni man bala nga am bu boo sëriñ ay grand sëriñ da nàngam ak ay nii ak wala nga nekk imaam day fekk nga am xam-xam am na nag ñoo am ñoo xam ne dañu am xam-xam ba pare saay-saay waaw loolu moom yàgg nañ ci àdduna bi waaye daal boroom xam-xam ak jànkatu diine ak imaam lu ñuy séntu ci moom daal mooy mu jub voilà kon daal loolu laa amoon lu ma doon live tey ñu leen di jox dox dajee beneen yoon incha allah ci yeneen live asalaamaaleykum wa rahmatullah